teewaat. balaa mu laa jël eh, ba nga daw. Eh? yow ma ne balaa mu laa jël. Eh, su la tàggalee programme bi nga <laughs> naa ko mu ñëw ma jël ko dañuy liggéey. Oh, jeex na damay ñëw. damay mais mais bu la briefingee. nii la ñuy liggéey. bu préféré mu noppi rek quoi ba nga na noppi ma ñëw mu ma garaaw. <laughs> toujours que ñëwal ñu liggéey baay ñëwal. la nga namm yëpp da nga ko am. dañuy tiital bu bu ñu bu ñu bu ñu civiloo dañuy tiitalaate bu ñu solee tenue dañuy tiitalaate. bu ñu solo non bu ñu civiloo dañuy gën a garaaw nag dafa mel ni <laughs> parce que li na fii moom yéeme na. alors coach balaa maa jël jéen yaa ngi doon wax euh, Casa Fitness Tour bi loolu neex na de. waaw maa euh, voilà donc euh, Casa Fitness Tour bi di war a am ren ñuy waajal troisième édition. donc euh, war am le 27 28 et 29 donc le 27 on sera à Bignona le 28 au Cap 29 Ziguinchor c'est dans le cadre de la promotion du sport au niveau de la Casamance montrer aux gens cette autre forme de faire le sport qui est le fitness ok mu nekk sport bi nga xam ne ñëpp a koy def amul âge moo xam mag nga moo xam ndaw nga ak noo mënti doon war nga ko mën a def et aujourd'hui ñun ñëpp nañ ni feebar yi léegi euh, feebar dañoo bari tel que le diabète euh, les maladies tel que kii Euh, hypertension ak yooyu donc yooyu euh, li koy andi li ci bëri mooy la mauvaise alimentation bi ñu am la malbouffe elle donc xamal donc moo waral ñun tey ñu jóg vraiment préparer affaire boobu di waajal euh, Casa Fitness en tout cas ñoo ngi woo population wu Casamance bi yëpp moo xam Cap et 29 Ziguinchor. alors day nekk ay ay ay. ay événement yoo xamante ne euh, à l'air libre lay doon wala euh, salle euh, ci ci voilà. exactement c'est un événement bi nga xam ne c'est dans les places publiques yi lañ koy def donc place publique la du nekk li nga xam ne lu ñuy tëju ak yooyu c'est des journées portes ouvertes en fait voilà donc euh, c'est en tout cas dal euh, fête du sport la. damay ñëw wala. non da ngay teew yow. dañuy ñëw da ngay ñëw. <laughs> mbër day dem sax. mbër day ñëw. maa ngi ci biir mbër ngi ci dara ñun ñëpp a alors mbokk yi euh, gis ngeen ni euh, bi nga xamante ne <laughs> voilà sama ñaari coach yi mbokk yi lii laa bëgg ngeen gis sama ñaari coach yi bi ma dalee def doole xel ba tey bi ma dalee nekk ci sport ba tey ñaar ñi ñoo ma gën a impressionné ñoom ñaar ñëpp ay daaxaate mbër bu ci réglé woon ñu daaxaate ñoo bokk tempérament est-ce que du li ngeen jaar yéen ñaar ñëpp armé. non non bul wax daaxee bul wax daaxee man mënu ma gëm daaxee man du ma compter ci mbër pour dem ci kaw mbër ci man lay compter da ngay def li ma bëgg wala ma daax la. amul secret man compté wu ma ci mbër du ma xaritoo mbër du ma dem kër mbër lan moo tax ngeen di nappee non déglu ma man du ma dem jaaxal nañu ma du dem kër mbër du ma ànd ak mbër du ma dem estat je fais tout le travail damay yee sama mbër 6 di ma matin ak sama oto yóbbu ko entraînement damay gere viem lépp sa comportement ak lépp heure bu jotee doo ma gis soxlawu ma ko ñoom ñoo soxla loolu lan parce que voilà bi ma la fekkee si tamit pareil. non en fait euh, il faut pas que nit ñi am nañ ko jàppee xëy na le côté bi yaakaar ni côté militaire boobu xëy na amaana mën naa aussi parce que aussi chez nous y a a aussi ce côté rigueur qu'on nous apprend parce que am na li nga xam nit am na li ne bu ci amul bu ci àndul ci li ngay liggéey rek euh, le sérieux rigueur bi donc yooyu bu amul ak ponctualité bi voilà parce que moi pense que le combat il gagne aux on n'est pas assidu quand on n'est pas sérieux dans ce qu'on fait aux entraînements donc li mu la wax moom laay ci dalu man mbër ci man ngay jaar mën a am li nga bëgg. yéen doo neexal mbër. non non mais pourquoi. mais parce que man maa man maa yor xam-xam nga soxla ko. donc xamalal la man dafa am li nga xam ne ni ma bëggee samay waaw ngay wuyoo ñu mën ci demee noonu. mais léegi mbër yi mbër yi ay star la ñu yéen doo leen ay star. non doo leen ay star mbër yi ñooy star mbër yi ñooy star. ma wax la benn affaire ñaari coach yi. waaw Arouna Boudian ak coach Max. leen laa lay wax kenn ku si nekk. entraîné na man ba may ba mënut wax dem di toog du jooy mais duñ bàyyi ñoom. ñaar ñii xam nga dafa am benn affaire bu am solo ci sport. sport amul secret dëgg la man xam nga ma faralu ma mbër yi ma àndal man dama lay wax dëgg lii moo fi nekk lii neew fi te gis nga raayante bi sport dëgg la quoi c'est la vérité jàkkaarloo ni nga wax ko dëgg lenn rek mooy def différence ñun ko si mënu ma yor élève xaw ma fi capacité am yam ma bëgg ko entraîner mënu ma yor mbër xaw ma fi capacité am yem ma bëgg ko entraîner c'est impossible non foog nga xam ko lu mu mën lu mu mënul ragal na wala ragalul bu méttee day bàyyi wala du bàyyi nga war a jël méthode boo koy entraîner bu fekkee mën nga ci dara nga entraîner boo ci mënul dara nga bàyyi ko mu def li mu wax rek loolu la c'est comme ça parce que man ñoom ñëpp ñu fi ñëw yëpp mbër mu fi ñëw d'abord je fais un test d'abord pour voir d'abord parce que il faut que d'abord ma xam bi ma yor fan la toll ak li mu yor et là maintenant ma xam ban genre travail laa lay fas la ma booleel fas fas la ma booleel <laughs> fas sama ginnaaw may daw si bi damaa daw ba mujj ma taxaw ne fas dama rey <laughs>